Assalamualaikum, share internet. ziar nañ leen bu baax a baax di len jox waccu way. alors euh, tay ñu ngi golf cité douane dal di setti seet si artiste bu maga mag bi nga xamni ni turam aduna ñukoy wax Ba bu ñu waxe Ba xel di dem ci xalam Tay nak ñu wara ñew ko mu dal di waxtaan ak ñun ñu dal di dugg ci lu beri bari bari ngeen xam kan mom moy Thierno Ba topp ma ñu dal di dem xooli Thierno Ba. thank you Salam alaikum, chers internautes. Merci encore une fois de nous rester fidèles. Alors, euh, tey ñu euh, dans votre émission La Voix de l'Art La Voix de l'Art nag de la beaucoup ko nous avons day wax ci regardez bu ngeen bu bi ñu def ni sax la moom fait madame Daldi Tok fait Daldi defal am di fait euh, yi Nous avons ñu dalal fait ki nga mom moy xalamum agna fu nek tay buñ ko xamé fu nek walu xalamam lañ ko xamé tay buñ ko déggé tamit walu batam mom motax tax Ba ñu ngi lay dalal di la ziar bu baaxa baax. alhamdullilah rabbil alamin Ba Pulo di sante yàlla julli sayidina Muhammad sallallahu alaihi wa di sante nak suñuy wajur ne ak baye suñu kilifay diine ak suñu kilifay aada suñu wëllëre ak suñu kóllëre ka nekk xale bu baax yaru lool xam sa bopp kon xamoon nga ne su yoon jeexul waax si lu jeex da nga dem ba yàlla boolaa sa soxna si nga xam ne sa soxna lay doon te su boobaa yéenay bokk mi kon na yàlla lépp barkeel ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam bàpp loo ngeen dégg moom mooy Thierno Ba Thierno comme ni ma leen ko waxee woon moom mooy turam war na àdduna Thierno comme ni ma leen ko waxee woon moom mooy euh, ku nekk fii ci Sénégal comme artiste joué na ak ku nekk mu doon nit ki nga xam ne ku laa biir nit ki nga xam ni ku disponible nit ki nga xam ni du du jëlal alors Thierno ñu ñu bëggoon xam tuuti. ta daal di tàmbale waxtaan bi d'ailleurs pour commencer bëggoon xam tuuti ci wàllum xalam xalam ñu gis tey senegal ci wàllum xalam kenn mënuñu wax te duñ tudd turu Thierno Thierno dañu bëggoon xam ndegam ndono la wala li nga xam nii daf la dab la wala loo dem école des arts pour jàng ko wala. waaw Pulo xalam dama ko doon gauche droite ci côté baay ci côté yaay. ba pare nak ma yow ñu bokk xalam gi no sant man la sant may te xalamo am lu tax hamad ila la ila i la demb i la ba dekk pour la samba bamba demba man fofu la jëlee xalam mhm. alors xalam bi yaa ko commencé est-ce que mën nañu xam ban année ban année la Thierno commencé xalam xam man nak xam ban année la parce que dama judd rek fekk xalam yi wéeru suma kër bàyyi ndax avant xalam riiti la woon fa la xalam jógee buñ jógee ci riiti ñu ñëw ci ñu wax xuddu moolo xalam gi nii lay bindoo waaye benn koord lay am ba am ñaari koord ba am ñett ba am ñeent ba am juróom ba am sax huit parce que malien yi huit la def bambara yi fu la laa fekk xalam gi de te bobu léegi nak vraiment dara ñaaw ci. alors euh, tierno xam nga buñ ne xalam tamit li tay ñu gis bant la moy luñu défaré defaree bant ak euh, genre fil wala tias donc amna corde bu nek amna lu muy représenter corde bu nek amna lu muy wax nga présenter ñu xalam bi ñu xol hmm, ba Bapulo <laughs> xam nga xalam ci peul dañuy wax koɗol gal pullo ganukaayu pël booy seeti pël ndax bu ñu xamad ila sàmb ila demb ila ñetti pël lañ ñoo bokk ndee bokk baay ñu ngi bokkoon benn nag léegi nag ñu ngi aayalante sàmmi xamadi bu demee du sàmm moo inspiration garab la amoon sàmb su demee day sàmm nag bi day am meew lool dem bu su demé sàmmi day defar tuk si nga lan buñ démé na ba nga xamné ku nekk nak li nga bëgg li mo la gënal ci lañ séparer métier yi ké nekk lawbé ki bëggoon garab gi nekk lawbé ki bëggoon nak bi nak moy sa mam moy samba ki bëggoon riti bi moy sama mam fala xalam joggé bant bi déna na der bi déna buum yi nag la caasu nag la waaw ci béjjën yi lañ koy jëlee tubaab yi dañoo xam ne koy favoriser rek ba mu nice lii deru béy la lii ci kook la jógee kook mooy leket mooy jomb si nga xam ne day doon nag si suufu mbaar di lay ba dem ca kow jur fa lépp lu ñu ko boole nag mu dee waaye du loon a démb gor dong la ñu xalamal fii nga yëngatu buum yi gor dong la ñëwoo de gor garmi du borom million de du borom jaamaa du borom kër gu rafet borom deret lay woo. ci kaw borom deret boobu noonu Thierno xam nañ ni euh, Dakar buñ nee Dakaru Ndiaye moom mooy bon en fait euh, le capitale du Sénégal alors gis nañ ni ñun ñëpp dëkkuñu Dakar mooy dañu jóge ci région wala daal di jóge ci village daal di ñëw Dakaru Ndiaye Thierno mën nañu xam kañ nga ñëw Dakar. bu ma ñëwee pour toog daal 96 laa fi ñëw. bu ma ñëwee nag ci bunt bi laa jaar Faar Géwél laa ñëwoon seet si ma fekk na mu téye ndakaaru am lu bari lu ma xam ci moom lu ma jàngee ci moom ma liggéey moom nag en même temps la gën a jafe nag mu doon suma xarit wóolu ma bu ñu demee Europe ñëpp lay nangu seen passeport ba des Thierno Ba bi toog ba tuddi naa ko doom bu am 13 ans noonu la mbir mi demee. mais Fatou Guéweul euh, bi nga ñëwee bon en fait da nga ñëw en tant que ku ko xam wala da nga ñëw pour seet ko pour wan ko sa savoir faire. 88 ba 95 maa ngi ànd ak Abou Djouba quinze ma ñëw Dakar ma seeti Fatou Guéweul. fekk mu dem États-Unis ma dellu ba 96 maa ngi suma soxna mu ngi amoon doom maa ngi dem dëkk bu naan war xoox maa ngi toog ci cabine téléphone bi far ma ne lii de numéro Fatou Guewel la maa ko fi bindoon ma jël numéro bi composé rek ma jot euh, benn xale bu jigéen yàlla ko yàlla xare àjjana mu tuddoon mi ci Sonko ma doon ne ko man la Ceerno mu ne ma Ceerno ma ne ko Ceerno Bade daar laay wootee damay xalam Faatu Géwël laa soxla woon mu tombeek Faatu Géwël tamit soxla woon xalam léegi nag Faatu Géwël jël téléphone bi ñu nuyante ma ne ko man daar laa dëkk ci Abdou laa nekkoon say woy di ma neex lool mu ne ma lu mu sa xalamal aw juba ma ne ko béedi seena mu ne suma ma sañoon de suba di ñëw Dakar ma ne ko dama nekk ci yoon bu ma demee ba sama soxna ma tuddal ko ba pare ci la ñëw Dakar ma ñëw une semaine laa fa def relevé lépp dara ci. alors boobu ba dara ñaawu ci comme Thierno nim ko waxee ñu daldi di euh, dem ci artiste yi parce que xam nga Sénégal bari na artiste lol car machallah allah te ñu gis Thierno bon en fait yamul ci Fatou Guewel rek est-ce que parce que dañuy gis artiste bi day day day signer contrat ci ben artiste yam ci mom tok ci mom mais ñu gis Thierno mu don Thierno aduna ñu gis ceer Thierno mu doon Thierno wu Sénégal ñu gis Thierno mu doon ceer wu artistes yi lan moom moo waral détachement boobu noonu moom mooy que ni koo sentir tey rek war nga mën a dem a jouer moom wala tey ku la soxla rek Thierno day dem daal di wuyu ko. waaw Bapoulo Bambaado laa Bambaado mooy kuñ boot métier bi ma def dëgg la Falgel moom fi indi daf maa wan ne moom. amut ak benn woykat xaar ma yàlla ndax su ma diggante ak Faatu Géwél euh, du contrat contrat dafay jeex waaye kóllëre wóllëre du jeex mais nag fu may demit dinaa ko tàggu jox ko cër bu mu mot sëkk mën naa li may def macha allah ci li ma defee suma biir tamit laab na ci te seq naa ñëpp tamit jàmm xaw ma ci kanam mm, musuma fàttaliku foo xam ne fi rek wax naa fa lu wax musuma xas sama nawle te sama moroom artiste ngay xalam ngay gitaar yaa xam yaa ngay fecc sax soo defee lu neex dama la yëg sama xol yàlla moo ma bindee loolu am na nag xol booy am macha allah dangay saf nit ñi de soo mun a li ngay def te yoroo xol bu rafet doo dem mun nga nax nit ñi wax yàlla munoo ko nax nii laa mel nii laa mel te jartu wax mais xëy na li mu nekk télé nga laaj ma ma wax la waaye xam naa ne suma xol bi de li ma yéene artistes yi yal naa leen ci jiitu du ma yàqal kenn doo def dama koy daf may neex man parce que sama sentimental loolu ma yàlla bindee bappuloo alors ñu gis ci kaw sentimental boobu nga wax léegi xam nga xalam tey buñ koy wax dañuy dégg ñu naan xalam day ubbi nga gis jigéen bi nga xam ni sëyul mosul am jëkkër woo Thierno Ba Thierno toog daal di koy xelamal ci temps bu ndaw bu gàtt ñu daal di dégg ne ah diwkat dégg na alxayri lan nga ñu mën a wax ci loolu. loolu sant yàlla kii sama soxna la kii sama jarbaar kii di gitaar di Cheikh Ba Mayam ñoo bokk leeg bàyyi rus naa di fen seen kanam xanaa ma jolof. pël yi boo takkee soxna boo jëlee sa soxna boo yóbbu boo yóbbul bambaado boo demee du la jox sa soxna parce que bambaado day dëj sëy bu ñëwee ñoo seet bi sax ñoo añandoo ñooy reerandoo bu dee për bu yor dara la su may dem nag la may jox tey jii suma ma ñëwee tey ci bi nga doon pël ma fekk la nga yor benn lal yàq sa jabar suma nyewe ñëwee da ngay wàcc nga ne Ceerno Bambaado kay tëdd fii Bambaado dafa pël dafa ñeewantal Bambaado noonu la ko Bambaado tamit ñeewantalee amul ku ñuy xalama ngay dellu gannaaw parce que ñun ay buur la ñuy xalama ay ardo kon soo ñëwee Ndakaar nit mu laa cof rek da ngay wadd sama voyage France rek xeyna ma jaar tour dama dem jeudi vendredi samedi ma di dima lundi ma wara ñimbisi am ben femme bama wo invité ma kërëm ma ñew xalamal ko ma xalamal ko ke togal la ma ñetti reer bu may dem nak ma ne ko diw incha allah bala ñoo gisewaat jëkkër nga may doyee mu ree mu ne ma ceer ma toog naa dix ans sëyu ma ne ko yàlla yaatu na ma ne ko sama xalam gu naqari gii su may xalam des fa am na lu may aaloo suma biir du ma daanu ay gàngari nag su ma la waxee dara rek dafay nekk te xalam daa bëgg lu set mu ree mu ne ma yàlla baax na ba ma ñëwaatee fii ñuy wax téléphone deux semaine beneen semaine bi ma envoyé ko message mu toog ñeenti fan juróomi fan tontuma soo paree balaa ngaa dem danaa la déglul message bi su ma ci fenee rek xamal ne bu ma toogee ba léegi li may wax dara nekku ci ma envoyé ko message ma ne ko yow lu mot quatre fois ma la envoyé message tontuuma xanaa nga am jëkkër boog di feetu mu ma a ah, ceerno allah jarama jarama si ñaan nangu na loolu lu tax ma ñaanoon ko loolu dafa tombeeg dimanche ñëpp war a xëy liggéeyi nga invité say xarit pour nga teral ma loolu moo rëy ci man kon nit ma ñu xaalis aman ah, Ceerno Baare sama bopp laa xam du tax moo wax lu ma yëgut suma yaram man yëg yég bi laa bëgg ndaxte soo mayee tey xaalis yàlla moo ko jàll sa loxo nga jox ma ko mais yëg nit moo jafe dama nekk musicien boo xam ne soo ma woowee tey DJ nga ne ma Thierno Ka joué naa la fay cent mille su ma woon woo ma deux cent mille sax du dem parce que bëgguma ku tas suma yaakaar moo tax bëgguma tas yaakaar nit xalam garmee ko moom ku julli ci néeg bu mag moko mom kuy bañ di nangu mom mom xaram ku mënta bañ mënoo nang ku mënta nangu mënoo bañ bàpp loolu na lu nexna alors euh, Thierno ñu gis ni moment bi ni dañu nek euh, moment bi nga xamni mom moy moment coronavirus et que quand on parle de coronavirus xam nañ ni actuellement dafa impacter sen liguey yeen en tant que artiste moom mooy dara yengotul lepp taxawna nan ngeen di dundé loolu noonu comme ci yàlla lañ jógee ci moom la dellu su ma gis-gis bu daal su fekkoon te dafa nekk loo xam ne man kese la daal dinaa wax man lan laa def yàlla kon nga sant yàlla ndax lu métti métti ba amul kër tamit yaa ngi fay sa location yaa ngi xëy di lekk di naan waaye sénégalais dafa nekk loo xam ne dañoo yore benn jikko boo xam ne dafa xaw a doy waar tuuti tey dijee boo ñëwee seet si ma nii rek nga ne salaamaaleykum Thierno na nga def saba ma xam ne dafa am loo soxla ci man rek hi Thierno xanaa dëkk ba métti temps yi corona bi dafa metti bu amoon soxla est ma ko wax ñu na wax alhamdulilahi rabbil alamina yàlla jëppi na ñooñu parce que da ngay sant pare te doo sant xam nga ñaari yëpp la da sant pare te doo sant lu ma ci xam daal ñu indiwaat xel yi ñu defaraat toogin bi xoolaat jikko ji yàlla daf ñu yar rek moo tax affaire bi doxee nii de kese alors loolu am na solo ñu xoolaat jikko yi xoolaat taxawaay bi xoolaat toogin bi te xam ni yàlla moom moo ko fi wàcc te moom mi ko fi wàccee yàlla na ko yàlla delloowaat fi mu jóge woon ci daraja Seydina Mohamed alors bu ñu jógee foofu Thierno dañu gis ni Thierno ci xalam lañ ko xam ah ñu xëy suba ceer Thierno dellu Jolof ñu ne Thierno lu muy wuti Jolof mu xëy indil ñu Aly Ngouille Ndiaye ñii naan ceer Thierno day day politique ñii naan Thierno ministre bi lay woy lan moo tax mu woy ko xaalis moo tax mu woy ko wala lan moo tax mu woy ko tungu ne nag du teew ñuy man dama bëgg nga wax ma ceer Thierno ci sa morceau Aly Ngouille boobu noonu lan moom moo tax morso boobu ak morso boobu Thierno lan la ci dugg. Aly njaay Ndiaye biram penn jeme bukaar biigi sangule biram kurakanta si daagu leen xana xamoo ànd bu yàlla lalee da fa fekk yàlla parce que dafay am barke Aly Ngouille suma najay bi bok sama yaay ben bay mo do xalamal bayam yàlla def nak ta yoyu man xale la ba yàlla demé dal yàlla def ba yàlla dem ba bor fi ci dakaru do na dem kërëm nak wala sa 15 août bu dajla ay nit mu ne ñoo xalamal ñu mu waxtaanal ñu parce que mooy suñu bàmbaado moom lañu am ker ba ko yàlla dugalee ci politique bi nag première réunion bi mu njëkk revin dafa revin dama woolu ma ànd ak moom fu mu dajale dix personnes vingt personnes dama ñëw fekkee ba yàlla may ko ndam te li ma may lépp nag lu ma ci gën a neex moo yëg na ma ku naan Basir Moussa Ndiaye mooy chef de cabinet moom laa bokkoon benn kër ma doon wax ne Thierno kaay dem ci Ali boobu Ali banque la nekkoon parce que Ali dafa bëgg yii te sa najaay suñu wulare papa la loolu moo tax ma am ak moom boobu relation léegi nag ñu dem nag mu liggéey Jolof mu liggéey jolof liggéey jolof daal lépp daal macha allah li mu mënoon lépp def na ko de suma benn mag suma xalifa Abdou Khader Sarr mu ne ma Thierno xanaa jolof amul woykat ma ne tax mu ne ma ñëpp ñoo ngi woy seen leader yi te jolof mosuma dégg kenn ku ko fa woy lu tax loolu ci laa dem studio ma woy ko. way xaw a diib ah mu nekk lool ñu demaat trois mois hmm, Abdou Khader Sarr mu ne ma woy wii du woy politique da def woy bu xumb mooy docteur Seluwaal mu jox ma xaalis te mag Aliou Ngouille Ndiaye xamante nañ waaye duñu ay xarit yu demlante mu jox ma xaalis ma dem studio ma def morceau bi ah macha allah nag rëccu ma ko daal waaye li nga ko njëkkoon woy te doonul woon politique est-ce que mën nga ñu ci mën nga ci may benn extrait bu ndaw fi ñu toog. parce que loolu même morceau la bi la ba boo dafa gënoon dig rek. ba ba Cheikh ñëwal fii demal ndax da nga bi. Ayo gilam Gilam gilam gilam gilam Ano rinja nguy ya mi dani gido gido mba wana gida demgal seydi njaay ayo mi dani gido ya njaay be bari ide la defoon premier morceau bi différence bi rek bee dafa diib bi la dafa gaaw xam nga politiciens yi moom di way il faut fi xaw xumb tuuti ndax militant yi moom mel na ñoom lay faata ñoom faamaak ñoom fat ay dara ñoom raamata bi dañuy bëgg a moo tax ma def ci ay bagage tuuti loolu loolu da ciy baax des fois léegi Aliou Aliou Aliou Ngouille moom nan la gisee way bi après recevoir na la après loolu Aliou Ngouille Ndiaye recevoir moom këram laa dëkk xam nga ab jàmbur wal ko xam ne kii weer ba ñaari <laughs> weer la lay gis waaye yàlla seede na ma ko këram laa dëkk ndax soxnaam Salimata Sow suma xale la fii la ñëw benn jour rek Sali fekk ma toog suma doom bu jigéen ma présenté ko suma doom moom kenn ci sa doom la ma waw moy man mu ne ma ne su la nga may mako de way neex na ma dama bëgg nga jox mako ko ma nekk ak mom ma yobul xam nga yoyu ay valeur yo xamne mu ëpp khalis ali Ngouille Ndiaye duma wax ci mom lo xamne nekul ci mom ndax mom gën xam boppam te ay mbokkam xam nañ ko yaru na tey na yëg na nit te boo demante këram nii pour dañ lay tibbal nii déedéet yàlla de seet na max yéen ay lekkandoo te da lay tegal sax ba nga defee ne soxna si lekku ci kaw ndab li mu ne ma ceerno wuti ko am ko yomb na mu ne ma ceerno nga di ko jëfandikoo yomb na ma ne ko waaw mu ne ma ceeno mu ràpp ak jàmm moo jafe mu ne sama génne ministère damay gis lu mot quinze personnes wala dix ay indi ñoom ñëpp foofu lañu nekkoon ñoom ñëpp kenn nekkatu fa mu ne ma suba xaw ma ci ban anam lay doon mais dañu fi romb ba fekk sama fortune ne Aly Ngouille Ndiaye mos na fay jaar kooku may Aly Ngouille Ndiaye donc loolu dégg nañ ko cher internaute daal di wax ci Aly Ngouille Ndiaye daal di wax ci Thierno euh, single bi mu génne woon daal di koy euh, toftale Aly Ngouille Ndiaye Sénégal yëpp doon yëngu nag ñii di laaj Thierno moom lan la Thierno ndegam xalam la Thierno ndegam artiste la wala Thierno ndegam euh, politicien la donc loolu leer na ci bopp nit ñi alors Thierno bu ñu jógee foofu noonu dama sànq duggoon nañ ci coronavirus moom mooy gémmiñ bu yàlla xar xar rek dina ci def pepp. waaye Thierno ci guddi yuñ toll nii mooy corona bi ni Thierno ci ci lan lan lay lan lay yëngu li nga xam nii bon en fait mën na koo indil fattal yenn tur yi parce que xam nañ ni Thierno kër kër dafa dañ dafa metti yor kër dafa metti boo nekkee bambar ku mel ni man boo ànd ak Fatou Guewel wala nga ànd ak ku mel ni Koumba Gawlo maa ngi ko jaaree bu baax moom it euh, damay xam ne bambaatu laa damay wut nit ñi ndax am nit kii moom a gënal am xaalis waaye coono du réer boroom soo amee nit ñi su problème xewee rek danga wutal euh, pexe spectacle amul soirée amul awma compte banque mais am naa nit ñi soo amee nit ñi nag moom xam naa ne ñàkkoo dara man ndax foofu laa ko wéer bu soiré amé ño xam ba amul ño xam hmm, dama tok suma jabar appartement bi mu koy wut kérok mu ne ma ciano yow dafa am lo andal man lutax mu ne ma sha allah damay gis lo, lijeenti dang koy am ne ko sha allah ba ciatu dama wol sama xol bi te di jëriñ dañu xamoon mën nga nax nit waaye yalla mi fay mënoko nax man nit moo may wor nit moo may nax man luma nax nit men dafa jeex serra nga ay doomu ndeyu and mbëggeel jeex na di soxna soo fi takk ngeen def 6 mois 7 mois jox dépense rek day ñaan baat moo tax démb ak tey doon ñaar ka doon xale bo yëgte lox bi bu lay jóg bo yëgte tànk bi day jóg fi dara jotu la ah dangay neex a bëgg de ah, bés boo jullee lox bi dox ci biir poos mun a génn ci nga xam jeeg ba la bëgg ak jeeg ba la bañ

yen ñëpp ku nekk turam ak santam di rafetlu seen teway fi ci kër gi di leen jaajëfal di leen dalal. en tant que yen jabaru jabaru jabaru artiste nan ngeen koy dundé ah metti na mom parce que da nga mën nga tok 1 mois do gis sa jëkkeur tok ba 3 heures du matin do ko gis mais sante yalla rek nga xamni day wuti rek motax metti na mom mais yalla baxna yalla baxna tay yow buñ la buñ la laajoon ci Thierno Ba ban ban model de de mari la ban model de jëkkeur la lan nga ñu mëna wax. Thierno à part jëkkër ji sax sama càmmil la mais Thierno en tant que jëkkër góor gu baax la góor gu mën yore jabar la gu yërëm jabar la gu yërëm jigéen la Thierno ñëpp la yërëm ñu nekk ci biir ci biti yëpp la yemale ñëpp la bokk uuf góor gu baax la daal bëgg na jabaram yëral ma jabaram wax dëgg yàlla ku mën yore jigéen la macha allah dafa lafet xool bu baax la rek laa mën a wax ci moom. Thierno tey bu ni woon tay dafay jëlaat beneen loo ciy wax. <laughs> ah joxe dara

yalla musal ci corona bi su demee ba jeex nag ñu doog a commencé exploiter programme yi waaye boo nekkee ci mm, guddi gu bët setagut doo xam no yeewoo moo tax da ñu bëri damay dégg ñuy wax ne maa ci ay projet nangam maa ngi ay projet nangam ma ne talaguma projet maa ngi yore suma xalam nag léegi-léegi rek am na benn uh, géer wala suma benn wëllëre bala ma géer sax man man ay xarit laa am parce que fekkete nee ne ma xalamal la nga may ma dong lañ seex dijee saa yu ma du bëggee seet si boo yorul loo ma may dangay wax ne damaa génn waaye bu fekkete ne loolu induma sa kër ah pour nga dem recevoir ce que fay dal di yomb man def na ne tay projet tay yi mooy la xala tay yi yalla musal ci corona bi yalla ci mucc ak jàmm muccule lu ci dess nak lu ci yalla wërsëgale rek xamna la yalla yàlla lu ci yalla wërsëgal nga xamne ne bu nekkoon corona sa lolu yalla di wërsëgalee waaye dafa wax nit ñi nañu sante yalla bu yor sa nga ne ci miskin ngay mujj ni do alhamdulillahi rabbil alamin bu nga juddo indalo woo tuba indaale mbubu nga dem ba mo commencé am suba am mbubu par alhamdulillah ñi ñaan nak mu yok way ba ñu kër ci su yorul di xef bon salam alaykum si dekk bi metti na dekk bi safna na ba yoon carte ordonnance bu ko jox sa da ngay dañ lolu na sante yalla may fi mu joge su fa defut buntu fi mu jëm mun fa faj dara ko ko ali lolo ba mam uh jaara mhm. ziaré daawul sama njurwan usman yara aliou dembur so pullo mal ziaré bu baax ziaré bashir musa ndiaye di ñaanal yalla bay la sa soxna si yalla ngeen tawlo ay seex te yalla mën nako ku leen xaar yàlla na xaar ji seen ànd rafet na mm, nay jéggale di jëllale ngay jéggale ngay jéllale di wax ne madame Ba est-ce bien xam nga dama tëgg tama yii tandagin tandagin tandagin tandagin tandagin ndang tama rek laa mën damay jouer guitare hmm, Abdou Ba mu ne ma nag bayil tama yàgg na mu ne ma Samba Diop mi tegal Ba Maal ak Assane Thiam li amoon ci barke tama yóbbu nañ ko demal xalami concentré ci xalam gi xam naa dañoo gis na ma rafetal ko nag ndax peut-être naa nu ma tuxumoo moo tax nag ah ñu ñu jël topp suma gannaaw yal na yàlla jàppale ñoom it alors euh, Amine Thierno léegi euh, lan nga may wax ci aidar Vision parce que dañ nek site internet bi nga xamni biñu juddo ñu na ñu nek ci nak di def euh, métier bi nga xamni ku ku rek dinañ la te lu aussi tamit dinañ ko wone lan nga ñuy wax ci Vision. Aïdar Vision ci deuxième wala troisième. la voix de la voix de l'art ci yow man de yalla mayen na ma lu ma loxo mu dem xam nga nit nebutu ngeen woon ñu xam ko mu njëriñam yalla na yalla fayal bopam ngeen déplacer wu tar sen auto yéen xam jël sen taxi choono bi ngeen ci daj ak yene bi rek mu ëpp loolu lépp na law bu doon télé buñ samp yalla mun nako man la la alors chers euh, internautes à l'instant même c'était Tchernoba, l'émission tire à sa fin euh, avec euh, l'homme qui se nomme DJ Kato merci encore une fois je remercie ma caméra woman, madame Badi et Aïda Badiane merci encore une fois ci liggéey bu rafet bi ziar nañ len bu baax ñu di jox rendez-vous euh, une autre fois. ci beneen la voix de l'art xaar ma maa ngi ñëw toggal sa te xaar ma maa ngi ci yoon bi pula dakata pula wulata pula fenata salamata so pula jeeri badañ ma wasaani sayande julde ñaan tan wurel mamadou jam Fatou Salma ñaan an jara